Mm-hmm. bu gat amul gat gati gat du am ba gat sali am gat mooy lii R R4 mm-hmm. lii boo ma doon may bi nga may may ndox mi sànq mm-hmm. su daanoon toj ma ne la massa soo ma doon dóor dara nga di ma def fukki ma ne la di wala gat sa loolu mooy gat sa gat léegi yow nga daal dem ba ker non dañuy wax rek parce que même meeting bi noonu sax ñii dañoo waxee nii jënd galaas ñee wax di xiiw mm. xaj bi mat di boobu ñun ñoo xeexut xam nga ñu daan xeex ñi mën a xeex jamono yi jamono yi ñoo ne xeexuñu léegi yow mi dem ba ker nga taxaw ne da ngay xeex. mais ñoom leen dañuy xeex de parce que woote nañu résistance non bëlëf dañuy sóob rek. ah bon waaw nañ yeggale ci di jàppoon ne ñoom dinañ génn euh, maanaam. fenn duñ fa dem xam nga lan mooy seen. saisir nañ ci CEDEAO aussi non non CEDEAO la. saisir bii nii nga xam ne moo ne moo ne Sénégal amul benn problème moo ne Ousmane Sonko ba fu benn droit CEDEAO boobu ngay ngay ngay dem nañu may jàmm foofu sax laay kiyaale ci xaw ma ndax da nga ciy wax rapport bi gars yi génne human rights board la xaw ma. voilà te Macky Sall taxaw léegi effectivement président Macky Sall. ñu wax ni euh, merci beaucoup ci wàllum euh, prisonnier politique amul parce que ñoom dañoo xamle que ni euh, dañoo war dañoo war a ubbi ab l'enquête. Hmm. jëm ca xale yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci wàllu manifestation. parce que jàpp nañ ne li ni mel dëgg. waaw ba ba ba waxaale sax bu ci police jaaree ak naa xam nga tey ñu ngi koy doog a wax beneen mooy prisonnier politique amul. Mhm. comme ñoom gëmuñ ko. xam kañ lañ koy gëm. kañ lañ koy gëm. 25 février suñu voté lee Diomaye ba mu génn à premier tour ñu génnee ko kaso danañ xam ne prisonnier politique am na xam nga loolu benn la. Mhm. beneen bi mooy dégg naa ko muy wax naan démb ci kii nee na bilan immatériel amul. Mhm. maanaam dañuy wax di wax ay bilan ay bilan matériel moo am xam nga luy bilan am bilan immatériel. mooy jom. boo ko amul noo koy xamee jom c'est pas péjoratif nag du saaga jom mooy jomb maanaam amoo jom mooy amoo looy jomb maanaam jomboo nit dem sàcc liste parrain ñëw pare nga recevoir ko président Macky Sall jomboo maanaam nit ki justice joxe dogal ñaari yoon nga bañ koo jëfe te nee woon nga da nga veiller à ñu respecte décision de justice te ñaari décision de justice jomboo sa wax ja nga waxoon ne da nga veiller à ce ñu respecté ko mhm. jomboo sa wax jooju teggi ci ñaari décision bu saaba si fay ak bu coom loolu mooy jomboo mhm. jomboo ay nit faatu barki démb bu xale yooyu ñu rey ci oto yi mhm. nga xam ne ci enquête ne serait-ce enquête sérieuse am fañ leen fekk mais ñu xool ko loolu noonu jomboo nga jiite dëkk te yooyu continue di am jomboo lu baree baree bare am fi jomboo ba tey wàdd bari lu pétrole mhm. doon jar daanaka cent quatre-vingt ëppoon na cent dix nga falu rek 2012 2013 bay waaj a yegg kii baril bi xaweeku xaweeku laay wax du ma ne wàcc <laughs> jógee 180 wala 170 ñëw ba 28 dollars 28 je dis yàgg fa lool doo ko dem 32 yàggaat fa lool Macky wàññi booba essence li mu wàññi matut cent francs wala ci lay am. Mhm. te ci wàdd la baril bi doon jar cent 180. ba fi mu ne nii corona bi fi jaar ak guerru Ukraine bii barki démb lay doog a yegg 80 <coughs> ba léegi kon 100 yi ci tege woon ci wàdd sax yegg goo maa doon wax ci jamono yooyu mooy bi mu jaree ay trente deux vingt huit même jar na fi tamit cinquante huit lu yàgg sax booba wàdd su wàdd bu essence doon jar huit cent cinquante Macky mën na koo jëlee huit cent cinquante di ko jaayee trois cent cinquante te mooy ëppale bénéfice li wàdd doon am mais boobu wàññiwoo tus ba pare taxaw naan teggil nga askan wi dangaa yërëm askan wi li gën a yomb lu Macky Sall di li gën a yomb ci président moom la Macky Sall di def di ko ndamoo mooy leb tabax xam nga yow du yow yaay jël maçon di tabax tali bi nii di defar wala édifice public bi. Mhm. xam nga du def wala stade bi doo ko def. Mhm. stade bi Sénégal doon footballé démb xam nga ñaata lañ koy dépensé euh, quarante mille places boobu xam nga ñaata la ci vingt mille places xam nga quarante mille places waaw xam nga ñaata la ci kiy dépensé Côte d'Ivoire. 47 milliards ñun suñu stade bii maître cent cinquante cinq milliards. te xoolal stade bi boobu dem bi mu tàkkee ni mu rafete xaj na bu Sénégal ko ëpp kii mais buñ demoon ba muy kii mooy cent milliards war koo mat maanaam ma jox la exemple jombo ba tey Macky Sall. nationale. sa ministre Matar Ba taxaw fii. ne état def na ci lu ëpp trente def na ci trente deux milliards. bu yàggul sax combat Ama Baldé ak. Modou Lo bàyyi mbay garmee ngi naan état def na ci plus de trente milliards ma ne ko loolu gars yi dootuñ ko wax de <laughs> maanaam dañoo maanaam loolu ay fen la ci gàttal trente deux milliards demu ci fii lañ koy intégré ambassade Chine ñëw ne dañu ko may te huit milliards la. na fi léegi kon nga xam ne stade boobu huit milliards yi. 32 milliards yi nga xam ne dañ na def def nañ ko foofu ñu ko def kon mënoon nañoo defaat juróomi mënoon nañoo defaat yeneen juróomi stade. muy juróom benn 32 milliards boo ko divisé par par par par par kii ñaata ngay am 8 8 milliards divisé par 32 ñaata ngay am 4 wala yaakaar naa noonu la de. je crois de. 8 ak bële muy 5 kon 5 kon léegi <coughs> su fekkoon ne gone yi meroon nañ ci làmbi cité ji ba toj rukk stade bi ba mu nooy. kii ñaata lañ rukk 8 milliards. léegi kiy rukk toje. 8 mm-hmm. milliards ak ki toje 32 milliards ku dàq toje. kon loolu mooy bilan immatériel. ok mooy waxoon ne sama rak maam duma mas far sama kii ci décret jël décret di kii. wàcc ko loolu nit da koy joom kon bilan immatériel su ko nit ñi bëggee wax rek. kàddu gi gën a gaaw mooy kàddu gi nga xam ne ci wolof la am. te boo ko bëggee firi ci weneen làkk euh, weneen kii sax yenn kii am jafe-jafe muy jom. bilan immatériel mooy jom. moom lañ amul ñoom. bilan matriel bi it baaxul. mu ba tey daa bon mooy loo def benn mënoon nañoo am ñeentam. commençant par bi. Mhm. man dama sawar ci bilan boobu ñuy ndamoo benn baaxu ci. daf ko laajul sax sinon kon ma tegal la ko chiffre par chiffre. ok ne tey wàcceel la ko nag ci waxin bu neex a dégg. bu neex nag nga ñëw. dégg naa. parfois gars yi nee nañ man li may waxee baaxul parce que su ma toogee waa APR yi dañuy daw ñoo xam suñu amoon bilan danañ jàkkaarloo man fen loo ma <laughs> Macky wax na leen ne leen ñoo xam ne wax rek la ñuy def coow képp ah yéen ngeen yor bilan ba pare mënu leen maa défendre waaye moo lay xamal ne amoo bilan suñ mënoon defendre défendre bilan danañ jàkkaarloo ñun fen loo ñu mhm. gis naa keroog benn paa gars yi ñu ngi ciy sikk Cheikh Ousmane Touré donte xaw naa mere Cheikh Ousmane Babacar Gaye coow li ci man la déclenché parce que dafa ñëw ne ma waxuma dëgg te xam na ne bu ma jotaatoon ci kàddu gi day <laughs> mu xam ne doom neex na ndayam far Ousmane laaj ci kii bi ñu doon wax mooy euh, code euh, civil ak yooyu mu ciy wax naan parti buñ décidul nangam fan lañu mujj Baye Babacar conseil constitutionnel neen na dëgg lala taxoon a génn plateau bi. Mhm. ngay mer defe ne liñ la doon wax di wax naan seet ko ci ay huit cent nangam nangam. Babacar Gaye conseil constitutionnel nee na waxoo dëgg. Mhm. mbay Gaye conseil constitutionnel nee na waxoo dëgg ba muy ñetti yoon. Mhm. <laughs> voilà ba léegi eh, ci mbir moomi lee est-ce que mi jotul jamono jii ñu daal di koy xam naa jeexalee foofu li est-ce que jotul euh, Sénégal euh, ñu daal di ubbi ab l'enquête euh, jëm ca li nga xam ne moom mooy mbirum xale yi nga xam ne faatu nañ bien vrai que ni ak régime ni ñu bëri amuñu yaakaar à ce que indi li nga xam ne moom mooy lumière jëm ca loolu leen mais est-ce que bu continuer ni ni mel ak régime bii ni après prison Macky Sall comme ni ñu koy waxee après nguur am na mais après nguur tamit li ni mel mën na ko jural li nga xam ne moom mooy jafe-jafe parce que euh, dinañ xam parce que rapport américain bi lu mu waxoon dafa leer que ni xale yi faatu ci mars 2021 bi su leen état bi rayul tamit seen tour la leen rayee kon mu nekk ay mbir yu bëri yoo xam jamono ci ni euh, nekk na ay conséquences euh, daal di ñu ko ngàll ko ci ndodd ki nga xam ne mooy état bi. heureusement bi nga waxee conséquences yooyu yëpp ay conséquence la cause bi nag mooy fal koo warta fal. Hmm. njuum li ñu defoon ba fal. kees warta fal te koo warta fal boo ko falee day tabbu ñu ko yées parce que dama lay jox exemple Ablaye Wade Ablaye Wade ku ñu waroon a fal la fal ko dafa dem wuti ñoo xam ne nii du am problème mu boroom xam-xam parce que xam na ne am na xam-xam boo ko ëppalee du doon problème am parce que dafa am lu woykat bi di wax ñi sa njub gi di fàttali seen njubadik duñ bëgg nga kii professeur Moustapha Kassé bi Wade di daanoo laay doo ko xam ne conseil Wade la parce que bu ñu ko masaan a invité diine ak jamono wala yooyu. Mhm. doo ko xàmme parce que buy ñëw économie lay wax borom xam-xam doo ko mën a tënk. léegi nag yow boo amul xam-xam. wala liggéey dëgg dëgg dëgg taxulaa jóg. au lieu nga dem wuuti tab maanaam nga nomee ñu gën a ñu la raw da koy da koy da nga koy réy mm. léegi bu ko defee nag bonjour lay dégâts léegi nag loolu li ci gën a gàtt mooy. yi ñu fi wax yëpp ay heureusement bi nga ne conséquence. comme cause bii yoon ñu tab ñu fal ku ñu war a fal kooku tabbal ñu ñu mu war a tab mm-hmm. après ensemble bi ñu tabb fa ay nit yu moom seen bopp di wax dëgg te yàlla tax ñu mel ni saa wolof bu mm-hmm. ñu fa baree mm-hmm. lu ñu leen andil même bu doon seen parti la lu ñu taxaw di fa tenir naan ay député diw laa wala nangam ak nangam loolu mooy dëgg gi gis nga réew yàlla def ne yéen yàlla moom la ko wax mu wax ñu ko ku gis ci yéen lu ñaaw na ko dindi ak yoxoom su ko mënut na ko wax ci làmmiñam su ko mënut fas ko ci xolam te fas gi ci xol mooy li gën a waaye di dindeeg say loxo nag askan wi am nañ ko ci bésu vote moo lay xamal ne sa baat nga am vote wét bésu vote booy wét sa baat mm-hmm. ne kii la mooy tax mu doon kooku loolu nag bis boo ko tegee ci parparloo ak ma neex soo faatoo dana bokk ci lii la yàlla di laaj parce que bi nga ma amee occasion dindeeg say loxo dindiwoo mm-hmm. kon problème bi fii ku mu neex bañal Sonko bañal Diomaye affaire bi du foofu man xam nga sànq wax naa la ko affaire bi du foofu mais mën ngaa bañ nit sax te xam ne moo gën ci lii nga jox ko ko parce que jubluwoo ko. Mhm. aw fas doo ko jox sa xarit da koy jox xaritam. te ñi wane fii ne réew mi rek lañ bëgg ba mu jaral leen euh, ñàkk xam nga dem naa sama bàmmeelu bàyyi ziyaare naa ko tàggu naa samay mbokk ñëw naa. loolu ku paree koy def mooy la suma góor ga waxoon euh, Wade nee na daa tàggoon bàyyi Mor Talla nekk ko daa bëgg a def politique mu ne ko ah tu peur de la mort mu ne ko déedéet la prison mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag man ngaa sóobu noonu nag boo gestoo ñenn rek ñoo ko fi def wala defee ko defin wu ko raw fuuf muy waa Pastef borom joxoñ bu baax bi Ousmane Sonko kon ku ko joxoñ fi mu joxoñ ku fa jublu juumoo te boo demee ci suñ borom da nga amul lay parce que moo ko fi wane. ñeneen mhm. ñi waafoon ñëpp gis nga ko. kon nag comme dañuy bañ conséquences yi muy rey la ak wala buñ la rayee après du mujj fenn wala nit taxaw ne di nga xam ne du ma sa morom ba pare tax te tooñ la ba pare mu mujj moom fa ko neex moom borom alal bi. xam nga ne ak Ousmane Sonko wala Diomaye da lay wóor ni xam nga Diomaye dama ciy joxe rek benn témoin. boo xam ne dafa am benn diplôme. magistrat bu mu doon def ginnaaw bu mu nekkee euh, inspecteur ba pare am possibilité def diplôme magistrature mhm. te loolu concours sélectif la maanaam moom bu ko defee ba gañee dana am ku mu xañ te kooku bu ko xañee lu am liggéey xoolal googu ngore moom mu ne am naa liggéey ba pare te diplôme boobu ma ko amoon ma koy wékk sama saal rek comme loolu la xam naa ne am naa capacité am ko kon du ma ko def ngir loolu loolu bu la ko as gor waxee war ngaa xam ne boo ko dénkee Sénégal mu yor ko. Mm-hmm. damay ñaan yàlla na leen cat seexlu. incha allah voilà merci beaucoup Sawalo di la jaajëfal bu baax a baax mbégte la chaque fois di feggoog yow euh, plateau di waxtaan ak euh, analyse yu pertinente yi nga xam ne da koy def macha allah di la jaajëfal bu baax a baax ma daal di lay bàyyi rek nga daal di tàggoog.